dafay mel ni boo fay dugg da ngay set boo fay génn boo xësee bu dugg tilim da ngay am ay ambition ak yéen defar mi boo fa duggee tu change carrément man dama gëm ni doole dañ ko war a wàññi ci loxo nit. d' accord parlant toujours du PM. mu ngi mhm. jëm ci li nga xamante ni moom moo di euh, déclaration de politique générale am euh, gis nañ également euh, ñuy agité depuis lors li nga xamante ni moom moo di ab motion de censure député benn bokk yaakaar yi ñoom it depuis ñoom it ñu ngi ci indi ay tontu di xam le ni lu ni mel constitution moo leen ko may bu ñu ko bëggoon def kenn mënu leen ko teree def mais déjà bu ñu taxawee ci li xamante ni moom moo di euh, déclaration de politique générale pourquoi forcément euh, ñu war a njort ni lu nu mel mënees nañ cee xaarandi ab motion de censure parce que motion de censure bu jàlloon tamit le président bu ko neexee tamit mën na reconduire ci nga xamante ni moo di bon xam nga loolu moom c'est une pression politique de l'APR bu ñuy agité pour wax waa gars yi bu leen dal suñu kaw de leen bloqué assemblée xam nga lu tax li nga seen président groupe parlementaire mooy Abdou Mbow bis bu leen jëmalee ci motion de censure moom la ñuy censurer moom. parce que leer na leen ne motion de censure du solution temps yi dañoo tàmbalee jënd glace. non dañuy jënd glace parce que bëgguñ ñu tas assemblée. motion de censure mooy tas assemblée au plus vite. gars yi ils ont des prêts bancaires am na nañ ay projet yu ñu nekk. gis nga fi Ablaade bi mu fi tasee assemblée dafa fayal député yi bor xam nga ñii duñ fayal député yi bor Macky Sall bi mu ko bëggee tas lu ko député wax ñun ñëpp am ay bor bor yooyu ñu ngi fi APR jeex na les gens font migrer surtout que ne APR nit ñi gëmewuñ ko woon idéologie intérêt lañ ko nekkee surtout ñi nekk assemblée ku ci nekk sa intérêt ngay defaan xam lu ñuy def dañuy disperser wu ngir éviter bu dóor bi di ñëw du leen fa fekk kenn du ci topp. ab Abdou Mbow ci lim na déjà que ñoom député yi ku ci nekk ñii pro Amadou Ba lañ ñii daaw da Diallo lañ ñii pro X et Y. kon est jaroon na kon dans ce cas-là le porte-parole du gouvernement di leen aar. non loolu erreur la. oui loolu erreur la séparation des pouvoirs loolu erreur la woon sama xarit bi sare mënoon na éviter wax boobu loolu erreur la woon loolu de com la wax nag xëy def mooy jumbu la woon c'est à éviter vraiment te loolu erreur la loolu erreur de com la je pense que ah borom baax la borom baax la c'est un la dara nga ne dama ko daan fekk yow xam nga <laughs> Sare. non Sare day ñëw. <laughs> non dama koy tooñ loolu c'est un gars bien. man man dañuy waxtaan souvent dañuy déggant mais loolu je pense que rëcc rëcc la mhm. prochainement dana dana xool. dana éviter quoi yooyu jara éviter maanaam yenn pratique yi ñu nguur yi fi jóge woon wan ñoom yooyu dañ ko war a mooy. moo tax dafa xaw a nuwoog genre wu defante vu que ni également. Euh, mais nag attention moom it euh, motion de censure mais nag bu Benno Bokk Yaakaar bëggee bloquer dëkk bi mais l' état prendra ses responsabilités ah. lii mooy dëgg nag. est-ce que du lu ni mel la ñuy bañ parce que nañu président euh, gise naa ki nga xamante ni moom mooy le président Amadou Mame Diop wax ak moom te loolu lu rafet la parce que président d'instruction la au-delà du responsable de Benno hmm. bu Benno bëggee bloquer dëkk bi le président prendra ses responsabilités loolu moom amul nañ dem te ñëw léegi nag politiquement ils n'ont pas intérêt ku ci nekk ci ñoom saa mun na la indi réponse politique boo xam du la arrange comme ci formation politique yi fa nekk ñett lañ Benno Wallu Taxaw nel taxaw rek Yewwi moom du ñu am problème mu voté taxaw ndax Yewwi am na ñuy xaar ni dinañ dugg wala du dugg mais nel taxaw Benno leur gestion mi ngi fi du dëgg mën na ñaaw mën na gën a ñaaw mën na set yooyu reponse politique la Karim Wade ba léegi mi ngi pour waawal ba léegi dugg see gul ci dëkk bi autorisation moo ko fii dugalaat du dëgg Barthélemy Diaz dafa am appel bu mu def ñu confirmer ko su le ministre saisiré yaakaar naa le juge day jóge ci poste député mën na sax dem ba ci mairie de Dakar mairie de Dakar mu maintenir euh, euh, mouvement taxawu Sénégal donc ils n'ont pas intérêt dugg ci politique politicienne yooyu ndax réponse yi mun na mun na leen ban a arranger ñoom. d'accord mais dans ce cas dans ce cas là. Mmh. que ni actuellement euh, ñoom ñëpp euh, ñoo nekkandoo ci opposition bi je veux mm-hmm. dire par là taxawu ci opposition bi la nekk. Mm-hmm. Benno jamono jëlee ci opposition bi lañ nekk. Mm-hmm. même les autres candidats malheureux les Déthié Fall wut ñoom ñëpp tey jii mun nañ jàpp ni ci opposition bi lañ bokk. sachant que ni Benno fu mu nekk nii dina def euh, lu mu mun pour mooy ci li nga xamante ni moom moo di majorité à l'Assemblée nationale. ñu jëm ci li nga xamante ni moom moo di seen de mandat en septembre. certainement ci bi ak marathon budgétaire beeg yooyu peut-être tas assemblée du mën a nekk mais mënees nañ mm-hmm. nga xamante ni moom moo di seen pouvoir ak taxawaay bu ñu am à l'assemblée ndax jàpp nga ni mënee adopté même stratégie bi nga xamante ni euh, Yewwi ak Wallu defoon nañ ko muy seen fusion bi euh, ci législative bi ba am résultat yi nga xamante ni am nañ ko ak notamment su fekkee ne entre temps l'actuel chef de l'opposition di Amadou Ba ñëw na taxawal parti ngir am ay député à l'assemblée ci vote de loi mun nañ am ay direction ñoom kay jàppale woon nañ leen déjà waaw léegi buñ ñu continuer boobu mun nañ dugg ci gouvernement mun nañ am ay direction mun nañ am ay responsabilité mun nañ defaat fusion avec la coalition Diomaye am majorité. et taxaw. taxaw moom pour mu jege waaw taxaw nag moo mun a ànd ak Benno. voilà taxaw ak Benno moom moom ñaari peeru ciseaux lañ mun nañ daje buñ dajee. mën nañ am dara mais attention xam nga lan moo mën a amaat PS xam na ñu ngi conclave fusionné waat ak taxaw waaw boobaa taxaw mën na existé waat am PS mën na rajeunir waat mooy l'instance du parti rouage ak yooyu su boobaa buñ ko toggee à long terme mën naa jur dara mën naa jur dara mën nañ nekk principal opposant nguur gi fi nekk mais PDS li ma leen di digal te li stratégique ci ñoom mooy continuer accompagner la coalition Diomaye bu ñu demee élection député mais mun nañ raaful plus de cent sièges à l' assemblée. mais dans ce cas là euh, taxaw bu fekkee ni tey jii. loo ci mënti dégg penda fii doole bi ñaari coalition yooyoo ko fi yor fi mu toll. mais parti socialiste ji bu génnee dama benn bokk yaakaar. Mm-hmm. ñëw fusionné ak ak taxawu Sénégal dooleel leen. Mm-hmm. ñu teg seen candidat préparé ko pour mm-hmm. deux mille vingt son bi gaa ngi wax son bi son bi. xaw ma ndax Régis mi ngi normal wala. waaw certainement euh, Régis dinañ ci bàyyi xel Ismaïla mu ngi fa tuuti mu ngi fa te ñoom dañoo xarañ. bu baax a baax euh, seen liggéey alors Cheikh bi. Mm-hmm. Mm-hmm. lu ni mel su amee. Mm-hmm. ndax jàpp nga ni euh, dina profiter bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Barthélémy Diaz en 2029. boobaa te dans ce cas là yaa ngi ko wax léegi ñoom mun nañ nekk principal oppo opposant bu bu bu Bassirou Diomaye Faye. mi ngi dep mi ngi dépendre ci nan lay jéem a exister parce que baat fi mu toll nii il est un peu waat boppam. mooy à travers des actes à travers son comportement mais fexe convaincre at Sénégalais yi. waaw te yi la na ko dimbali surtout mën na ko mën na ko apporter plus mais réglé wul problème yëpp dana ko apporter bien sûr parce que instance bu mel ni PS dafa yàgg quoi. ku mu ñëw sa ginnaaw am na lu mu lay apporter mais Barthélémy foog mu defaraat communication avec les Sénégalais. dafa raté lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri non son bi ça va ndekete réseau bi la am nañu ko bind donc foog ñoom ñu leeral lu bëri bëri bëri bëri baat foog mu defaraat koomam mhm. foog mu génnewaat image bi ko topp depuis réeroo mag Ousmane ak léegi mhm. mais sànq ma ngi la koy wax Benno dafa ngoy tey jii ci majorité ma à l'Assemblée nationale dina yomb tey jii ci le régime en place ñu ñu renverser la la tendance parce que ku ne xam na ni euh, peut-être pour gouverner en toute sécurité il te faut quand même une majorité à l'Assemblée nationale bon Pastef dañu fu mu nekk nii majorité bi rek. Euh, bon Ousmane ñoom ci loolu kese lañ mooy. waa benn bon Ousmane day politique mooy day fexe politique ak PDS politique ak maanaam yeewi les députés de Yewwi ils sont autour de cinquante et quelque ah. Mm-hmm. boo ci doolee PDS dana am majorité. du dëgg ak les quelques députés de Benno yi bañ ñu tas leen donc ñoom ils n'auront pas du mal à voter à faire voter leur budget. léegi nag taxaw moom c'est clair et net qu'ils vont mais même taxawu xoola mun naa la benn xoola même taxawu. Mm-hmm. mun nañ bañ a bloquer. Mm-hmm. Mm-hmm. mun nañ bañ a bloquer. que da ciy ñaaw après les sénégalais dañ lay gën a mere ndax sénégalais yi ñiñ fekk na leen. yéen la ñu àndal à cinquante quatre pour cent li ëpp ci sénégalais ñiñ àndal ñoo ñooñu nga ñëw bëgg leen bloquer. loolu après dafay dafay yàqu lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri d'accord alors Cheikh bi Ousmane Sonko dafa annoncé moom ma ki nga xamante ni moom moo di le président di Bassirou Diomaye Faye